Maître Baba Diop avocat à la cour nga nekkone ki nga xamné ya yaa layo vie vieux Diop Ñuko ko topé ouverture exploitation d'une entreprise de surveillance et gardiennage sans autorisation préalable ak usurpation de fonction mën nga ñu wax rek ci teunk waaw euh, xam nga euh, dafa am ben loi bu ñu voté en 1978 euh, boo xam ne dafa né bép nit bo xamné da ngay yëngu ci walu gardiennage wala surveillance wala escorte na nga dem ministère de l'intérieur ñu defal la autorisation euh, autorisation bobu mu am benen décret bo xamné 1979 lañu ko jël mom moy wax naka nga koy alors yalla def na Vieux ba mu liggéeyee ci police ba pare euh, Sénégal ñëpp ràññee ko ci walu sécurité ndax sécurité bi nga xamante ne ni la assurer Idrissa Seck pendant ay moment yo xamante ne ni na lool mais mu taxaw tecc assurer ko ba ñëpp rafetlu ko yalla def mu génn ci liggéey bobu bëgg nag taxawal yëfu boppam comme xam-xamam màccul ci wàllu yoon état bi teg fi benn société bu benn agence bu ñuy wax APEX boo xam ne dañu fi ne ñoom ñoo fi ne pour jàppale bépp sénégale wala bépp investir boo xam ne da nga bëgg a taxawal société fii ñu jàppale la ci teg la ci yoon ba nga xamante ne ni taxawal nga sa mbir nga mën a demal sa bopp Vieux Sandiary dem ci APEX boobu ne dafa bëgg a taxawal société APEX gunge ko nag gunge ko ba mu am kayitam bañ xamal ko ne ko léegi nag mën naa doxal jëfu boppam. mu commencé doxal di fay impôt di def lépp loo xamante war ci bépp société boo ne yaa ci ah ba jamono yi passé police ci ay affaire tenue rek ndax dañoo romb ay agent agent yi solu solu boo xamante dafa niroog tenue police bi ko soytoo ñu laaj leen ñu ne ñoom ay agent groupe élite lañu bu Vieux Sandiary bi ñu leen convoqué ñu convoqué Vieux Sandiary mu ñëw ñu xamal ko ne ko tenue yi ak tenue police da nga ko changé gisu ci benn problème mu nangul len lolu ci ëllëg sa mu soppi ni yoy ñu yaakaar ne mbir mi dafay yem ñu delu ci ñaari fan après xamal ko ne ko nak ah mais mom société bi sax amul keuyit autorisation alors ci kaw lolu nak dañ koy top, dañ koy japp arrêté ko pour man lolu dafa ëpp jaru ko ndax nañu ko nañu ko waxé né ko tenue daf ko waroon changer noonu lañ ko waroon xamalé rek né dafa war wut autorisation mu wut ko ndax du ko xamante ni samba boy la wala du ko nit ñi ñaka xam wala limi def laqatu ci lu leer lay def. mais ci comme kayit bi ñu manam agrément war na ci mën am expérience ndax bu mu taxawee ci kanamu attakat bi mom néna inspecteur spécial de classe exceptionnelle la woon donc war na mëna xam né balaa ngi ubbi yenn sociétés yi il faut nga am kayit. dédét lolu ñum la parce que inspecteur bu jotewul ak euh, ak mbirum këyit dara euh, inspecteur mon liggéey bi mu doon def liggéey terrain la maanaam mi ngi toujours presque sur le terrain accompagner la la deuxième autorité de ce pays là muy muy Idrissa Seck bi mu nekkee premier ministre donc loolu euh, jotewul ak dara ndax décret bi ñuy wax sax Idrissa Seck boobu moo ko décret bi nga xam ne moo organisé autorisation bi Idrissa a signé donc euh, bu fekkoon ne koo xam ne la mi ngi ci wetu Idrissa bés bu ne kon dana xam décret boobu mais liggéeyam. du woon liggéeyu bureau liggéeyu terrain la won donc lolu mën nako ko xam ta ñàkk xam bo mu ko xam ñàkk xam motax mu dem apix gunge ko parce que bu ko xamalon bopam du ci and ak apix donc lu gi mu ko xamul motax mu mu and ci ak apix ba li soti tay te likoy deugal tay ji moy euh, tribunal bi mom ci bopam ak peine bi mu ko teg muy peine bo xam wax deug yalla peine bu bu bu may la lolu wané na né kon tribunal bi nangul nako né ne mu def tayuko parce que bu vous dañ jàpp ne li def le procureur Sakoun, mois un mois avec sursis

tenue c'est ci sa plaidoirie nee nga tenue amul lenn lo xam day wone ni police nationale la lu emblème bi la am muy euh, euh, drapeau Sénégal mën nga dellu ci waat si tenue waaw c'est vrai parce que deug la sax xam nga autorisation administrative biñ don doon wax sank bala nga koy am yow il faut nga won gars déjà yow tenue yi ngay sol nan lay mel parce que loolu aussi liñ ci djublu moy mu baña am confusion entre tenue yoyu ak tenues yi nga xamné c'est des tenues d'officier public wala moy euh, policier yi wala gendarme yi nañu baña niro ñu bañ leen jaawarle lolo tax ñu né la autorisation boo koy wut da ngay présenter sa tenue ñu xol ndax mën nañ la ko nangul wala mënuñu la ko nangul mais ñom tenue yi ñi sol pour man képp ko xamné jang nga boko xolé di nga xamné li du tenue police parce que couleur bi rek lañ nirole muy tenue Lacoste bu ñuul la Lacoste bu ñuul bi nak dañ ci def drapeau Sénégal mais boko xolé ñom bind nañ ci bu baax un groupe de société un groupe élite international nañ ko ci donc pour man képp ko vous ni jang nga bo xolé do ci risque de confusion pour le commode sénégalais ñi nga xamné buñ ko xolé bi na am confusion loolu mën nañ leen ko nangul ta nangul nañ leen ko tax agence ami agent sax ñu fi tay ci audience bi gis nga

défaillance bi c'est au niveau de l'APEX ñoko duggal ci erreur bi benen défaillance bi mom mi ngi fay impôt impôt aussi heure bu inee xaalisam impôt jël ko ma suñu ko wax né yow sa société bi tegul ci yoon bala ñi jël xaalisam di duggal sen poche war nañu sét ndax euh, ndax mom la def war na ko def wala waru ko def mais lool aussi waruñu waxuñu ko donc impôt aussi état la donc muy benen défaillance troisième défaillance koku mom ci ministère de l'intérieur la ñom ñuy joxe autorisation yi parce que ñom ci sen bop décret bi daf ne leen at bu jot ñom war nañ soytu agence de sécurité yoy lan lañuy ñuy liggéey ñoom bu doon def liggéey bobu aussi tay vie Sandiary du def ñaari at ta xamuñu ne mom amul autorisation donc boko ko yoy yep ay défaillance lo yoo xam état bu joué woon rôle am dëgg ci match ci ci ci ci ci fànn yi ma wax yoy yep kon tay ji vie Sandiary du def ñaari at di exercer te état mësul xamné mom amul autorisation ta la def làquwu ci parce que agent de sécurité lay employé ñi ngi sur le terrain ni ñaa ngi leen di gis su ne accord tribunal ba moom délibéré gis nañ ne un mois assos de sursis la ko defal mooy un mois yoo xam ne du ko tëdd tegal ko ci amende léegi peine bi yéen euh, doy doy na leen. waaw parce que loolu daanaka la ñuy wax peine contraventionnelle la du du loo xam ne sax peine peine délit la peine contraventionnelle du peine boo xamante ne nii penu samba boy la wala penu sax ku def te tey donc loolu donc tribunal nangul nañu ne moom la mu def yëpp teyu ci dara.